benn bal ci dara match ba nag benn bit ba ca am Gareth Bale moo ko dugal ancien attaquant ca Real de Madrid ndax kat jamono ji nekkatul joueuru réal de Madrid jógee na fa moom moo may ndam waa dëkkam di Pays de Galles match ba neexoon na trop jamono ji nag ñoom poule B la ñuy dem mottali poule bo poule B boobee nag Angleterre ma nga fa Iran ma nga fa ak États-Unis ñoom ñu ñëw mottali leen muy waa Pays de Galles poule boobu nag dina tàng jër ndax kat bu ñu seetloo ñeent ñi nga xamante ni ñoo fa nekk ñett ña anglais la ñuy làkk waa États-Unis anglais la ñuy làkk Angleterre anglais la ñuy làkk Pays de Galles anglais la ñuy làkk kon suñu tasee ci seen biir rek dina am ay derbi waaye nag derbi bi nga xamante ni mooy derbi bi ca gën a mag ca poule bee boobee moo di Angleterre ak Pays njoxkat ñoom ñaari dëkk yooyee mi ngi mel ni Sénégal ak muritani dañoo dende lool dañoo jaxasoo sax kon ñoom ñaar bu ñu jàkkaarloo rek dina neex lool ci fàttali nag waa Pays ñu ngi gëjoon ca coupe du monde ba 1958 jamono joojee ba léegi teguñu seen tànk ci coupe du monde waaye 2022 kenn du leen ko nettali incha allah. ñu jugee ci waa Pays de Galles dem ca waa Marseille ñoom nag seen président ba di Pablo Longoria ma ngay càmbar mbiru Pjanic la mu bëgg moo di dem ca waa Barcelone waxtaan ak ñoom ñu abal leen kii di Pjanic mu ànd ak option d'achat boo xam ne non obligatoire lay doon maanaam du nekk farlaa force bu saison bi jeexee su fekkee doxal na foofee ca Marseille waa Marseille jënd ko waaye nag loolu day fekk mu doxal te neex waa Marseille bu boobaa dinañu ko jënd la ñu bëgg moo di ñoom bu ñuy dem ca Ligue des ba ñu yóbbu fa ay joueurs yu am expérience te Pjanic mii am na expérience ci Ligue des champions final na ko sax boobee ma nga ca Juve waaye final boobee ñoom dañu ko ñàkkoon waa Juve jamono jii nag Pablo Longoria ma ngay càmbar ay mbiram ngir dem ca Barcelone abu leen ko loolee sport nekk journal bu mag ca Barcelone moo ko xam la ñu jugee ci waa Marseille dem ca waa Paris foofee nag lay xeeñ neexul ci ñaar ñii muy Pochettino ma leen di tàggat ak Leonardo mi nga xam ne mooy seen directeur sportif bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano waa Paris la ñuy waajal te yàggatul fileeg ay fan rek di ngeen ko dégg ñoom ñaar ñépp la waa Paris di waajal moo di génne leen ci seen club boobee maanaam dàq leen loolee Paris ma nga cay liggéey te fan yii di ñëw mën nañu koo siiwal xam le ñaar ñi nekkatuñ ci seen club boobee muy Pochettino ma leen di tàggat ak Leonardo mi nga xam ne mooy seen directeur sportif loolee Fabrizio Romano moo ko xam le ñu jógee ci waa Paris dem ca waa Barcelone ñoom nag ña ngay waajal ndax Frenkie de Jong kat waa Manchester United dañu koo bëggul lool te fawuñu ci ay mbiram jamono jii nag xelu waa Barcelone ma ngay ba tax na jóg nañu la ñu bëgg moo di su fekkee De day dem balaa muy dem doomu portigal bii di Bernardo Silva ñu fexe ba mu signé ca club boobee di Barcelone li ñu jàpp moo di Bernardo Silva mën naa wuutu franki De foofee te mën na la muy def te amatul temps de jeu ca Manchester City loolu moo tax waa Barcelone ña ngay xalaat ca dossier boobee ngir jënd ko su fekkee Frenkie De dafa dem mu wuutu ko foofee loole Daily Mail moo ko xam xamle ñu jugee ci waa Barcelone dem ca waa Atlético de Madrid ñoom nag ña ngay waajal ginnaaw bi Suarez demee la ñu bëgg moo di attaquant bu mën la muy def te doomu Espagne bi nekk ca Espanyol de Barcelone tudd Raúl de Tomás ña ngi koy bàyyi xel noppi nañu ngir def ci moom 30 million ba quarante millions d'euros ngir yóbbu ko foofee ca Wanda mu jàppale club boobee nga xam ne Diego Simeone moo koy tàggat li ñu bëgg moo di kat Ligue des champions bi ren jii wala saison bii di ñëw dañu caa bëgg a sori te seen attaque boobee faaw ñu tabaxaat ko te doomu Espagne bii kat Liga Santander bi ren doxal na moo tax Matte Moreto li mu xamle moo di Atlético de Madrid noppi na ngir def ci xaalis mu ñëw foofee jàppale Antoine Griezmann ak Joao Félix ca attaque ba waaye ci fàttali nag gone gi Real de Madrid moo ko formé gone gi nag la ca xel ma moo di football Ligue des champions waaye Real moomee formé ko moom mi ngi bàyyi xel gone gi su fekkee Luka Jovic dafa dem ñoom it danañu wutaat beneen attaquant te gone gii ña ngi koy bàyyi xel loole Matte Moreto moo ko xam le ñu jugee ci waa Atlético de Madrid jël doomu Serbie bii di Matic moom ma ngay football ca Manchester United. contrat am nag jeex na foofee te xamle woon na bu yàgg ne du xaatim ak Manchester beneen contrat ndax amul temps de jeu lu bari la muy toog ca banc ba mu ëpp la muy football jamono jii nag bu ñu sukkandikoo ci Di Marzio li mu xam xamle moo di bu jógee ca Manchester AS Roma lay wutali fekki José Mourinho su fekkee loolee am na nag dina doon ñetti yoon yoo xam ne Mourinho mu ngi koy tàggat ci ñetti club yu bokkul gannaaw Chelsea Manchester United su fekkee yemb na dem gi mu bëgg a dem ca AS Roma su ko defee dina doon ñetti yoon yoo xam ne Mourinho mi ngi koy tàggat ci ñetti club yu bokkul te loolee daanaka yemb na doomu Serbie bi la mu bëgg moo di dem signé ca AS Roma gratuite la ca des moo di waxtaan xool salaire bañ ko nam ma fay ndax dina ko arrangé moom wala du ko arrangé waaye waxtaan ba sori na lool loolee Di Marzio moo ko xamle gaa ñi yëf yi foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah